والصلاة والسلام على من بعث معلما سيدنا محمد الصفوة بن عدنان وعلى آله وصحبه أهل الإحسان ورضي الله عن بقية السلف وقدوة الخلق فخر الدين والمتن مولانا العبد الحليم أحمد محمد بن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk yi njiit yi tedd yi bokki taalibe mu ngi ñu ngi dellu si ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké al xalifatul aam li tariiqatil muridiyya ñaan suñu ba naan yi xam ne am na ko ci islam am ko ci yoon suñu borom may ko kàttan ak lépp mu mot kon kàddu yi ñu yëkkati ci ndigalam ak ci làmmiñam lañ koy def ni ñu ko baaxoo defee waxtu bi bu màggal Tuuba bi jub see ñu daje fii ci kër Sëriñ Tuuba bi ndax màggal gi saa su jàllee dañuy tàmbaliwaat rek di waaje déglu waaye Sëriñ Ousmane mi nga xam ne mooy coordinateur kuréelu màggal gi moo koy jiite. bu waxtu bi ak seen lay ngir soññaat leen yeesal leen li tax bi moo ko teel rek mooy doy ak ñàkk doy mënta ànd ndax ñi ci liggéey ñëpp ku ci ne dañ laa xool ba gis sa posture ak sa doy moo tax ñu dénk la rek lay liggéeyoo ndax liggéeyu Sëriñ Tuubaa di su jëme xarit di su jëme masa boobu kuñ ci gisoon te xam ne liggéey bi itam jàpp nañ ne defoo ko dañ ko war a defee boobaa danañ am fulla yi wax na leen di si wax waaye nag alhamdulilah yàlla def na bu ñu ko tàmbalee ba léegi ñoo ko seqal sëñ bi ku ci ne dama séntu ci ak kóolute gi moom itam. ni ma ko daan defee kilifa bi ko tàmbalee ci Cheikh Bara ak Cheikh Sidi Moussa noonu laa ko defewaat ci moom wala ma ci tàmbali benn jéego danaa delluwaat ci moom laajal ko liggéey waaye boo assuré rek mu ne la liggéey bi moom dal na sama lu ci jub ci ñun rek mën nga koy waaye teewul loolu lépp la ndigal moom saa su accès donc yeesal laaj ko ngir xam ne ak liggéeyam te luñ ci def tam dañuy fas yéene day jënd ndigal ak ngërëm comme màgg gi xam ne li ci bëree tudd ndax yées na ñaari weer kon daanaka tàbbi nañ ci biir muy xew-xew bu màgg bu boo xam ne bokk na ci xew-xew yi gën a rëy ci àdduna Afrique ñëpp xam ne moo fi gën a rëy Sénégal jëlee nañ ko kon xew-xew bu toll noonu. te xew-xew diine bu waaye itam wàllu koom-koom tabbi képp koo yaa koy seet ko taxaw war nga saa accès nga fexe ba fa nga tolloon daaw nga weesu bu déwénee loolu nag màggal bi moom li koy jegal boobu boo ko yëngalee ñun li ñu ci wax rek mooy léegi di ndam ndam bi di góorgóorlu ba àgg ci bis ba waaye loo koy jegal loo koy defal moom bis bi du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 ren nag yàlla dafa def màggal Tuubaa bi ñu ko tàmbalee sëriñ bi dénk ñu ko fañ ko tàmbalee ñëpp xam ne yi ñu ci daal defar kolo yeeg kolo yi par ñetti at lañ koy def ba ñu ko def nañ ko daaw jéeg kon day mel ne déwén incha allah ci lañ ko war a defaat ñu ko comité bi waxtaan ba déggoo ci ni ñu ko nasee yi ñu ci daal def mooy forme yëpp itam gis nañ ko te am na njëriñ yaatal bi ñu ko ñu bitim réew itam. am na jeexit am na njëriñ ndax bañ koy tàmbali màggal gi da nga daal dem ba agsi ci biir màggal gi te ku ci bokkul du ko xam waaye léegi yéene jën ci amoon mel na suñu borom fekk si nañ ci suñu Tuubaa nangu ndax la doon xëdëf ba di jubluwaay bi di gi doon loo xam ne xam nañ ne xew-xew boo xam ne àdduna sëpp ko war a bokk àdduna sépp ko bokk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 ñaari xew-xew yu rëy di ci am ndax màggal Tuuba doy na sëkk xew-xew ba ca dolli ko waate ñu war cee ubbi jàkka yi Masaalikul Jinaan loolu itam doy sëkk ab xew-xew ndax ak Cheikh Mouhamadou Mountakha moo santaane woon wax ne nañ ko tàmbali ci biir waajtaay màggal moo ko waxee ci laa jokkoo sëriñ Mbàkke yu fay mi nga xam ne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 ndax loolu itam day ndamul lislaam di ndamul Sëriñ Tuubaa ndax foo xam ne buñ ko fay jaarale dañ ko faa jaarloo ngir sànki ko ak mettital ko ngir bëgg mu tàyyal ci liggéey bi muy liggéey rasulullahi sallallahu alayhi teg ko fa ay metti yu tiis ba sëriñ bi ci biir ay mbindam muy wax ne iza zakartu zalika al mabita wa zalika al amina wa thubuta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 ba bëgg mu mel ne yàlla def ca pàkk bu njëkk ba mu yebaloon Cheikh Mouhamadou Mountakha mi tey mu mujj bi ñëw ci xilaafa Cheikh Mouhamadou Bara Mbacké ci la waxee Serigne Mbacké fay ne ko taxawul ma liggéey Cheikh Mouhamadou Bara ci pàkk bu mujj bi moom mu dolliwaat ci juróomeelu bi ne ko. way juróom bu tedd ba defoon Cheikh Mamadou Fadel ndax bi nga xamee ne Cheikh Mamadou Moustapha bàyyi ko ne ba liggéey jumaa yi toll ci raase bi Cheikh Mamadou Fadel Mbacké dikkee di ko àggale ci la ci dolli juróom mooy itam kon loolu taw féexal na ci moom ne ko way juróom ba defee ba ca di saat bàyyi ko Cheikh Sidi Moustapha Mbacké ñëw mooy ñëpp yàlla suñu doom dooli seen leer taa suñu Cheikh Mbacké moom nag mu am tawféex liggéey bi ne tàmbali ci loxoom mooy yebal Cheikh Mouhamadou Moustapha ma ànd ak moom mu joxe ndigal mu wax ne neen tàmbali liggéey ci 2012 ci lañ ko tàmbali mu doon liggéey bu jafe ndax sëkk ba rek kenn xamutoon ëpp na junni camion loolu kenn xamutoon toon ndax gas nañ ko bu ma juumut lu ëpp mètre ak suuf tonni suuf sax sëkk ko ba mu tollaat fa mu yëkkitoor ba ëppaat mètre ci kaw loolu cooy teg micro yi liggéey bu yor taamu yëkkati ko kon ba moom liggéey bu tuuti waaye taw fi wax suñu borom am ca ba liggéey bi sotti moo tax ñu jàpp ñetti bis benn bi ñu jagleel ko Serigne Saliou Mbacké mi nga xam ne ci la tàmbali woon ci moom ba ca toppaat ñu jagleel ko Cheikh Mouhamadou Bara ba ca tëjewaat ñu tuddee ko Cheikh Sidi Moustapha delloo leen ko njukkal ci seen liggéey boobu ñu doon liggéey jeexal ci seen kattan jeexal ci seen doore ba wujj suñ borom fekk Sëriñ Tuubaa mais mooy mën na rijaalun sadaqu maa ahadullah alayhi fa minhum man qadaa nahbahu wa minhum man yantazir wa maa baddalu tabdiila insha allahu saadiqiin sidqiin bu ñu ci ajjuma ji rek kon programme yu fees la yoo xam ne bu ñu àgg ci ajjuma ji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 bu ñu ko tàmbalee ren at mu jotati ñu def ko semaine bu lëmb lay boo xam ne mu ngi tàmbali mi ngi tàmbali mi ngi tàmbali le 16 ba déwén de ca français yu bëri ñoom itam tànn nañ ay thèmes yu bëree bëri ngir waxtaane ko ci bis bi bokk na ca taxawaayu murid ci biir France ci diirum ñeent fukki at yi weesu am na ca thème boo xam ne te ay kilifa yu mag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 ba ca des mooy li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li ko suñ borom waxaat ci alxuraan bi ne ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fazzan ghalisa al-qalbi lanfaddu min hawlika kon nit ñi war na yaatu jëm am na ci thème boo xam ne ci loolu lañ bisum ñeenteel bi mi ngi jëm ci kasbul xalaal te mooy fàggule lew daanaka mooy finance islamique yi ñuy dox ne waxtaane lañ ak xidma ci biir yoonu murit ba ca beneen bis ba ca desit ñu ngi ñu ngi cee waxtaane ndonoon lislaam ci biir yoonu murit nan lañ ko war a waggare sàmm ko ba mu ñoom ba dara du ci mejj dara du ci sikk am na ci bis thème boo xam ne loolu lañ cee waxtaane am na yi benn colloque international boo xam ne ci biir semaine culturelle la boo xam ne borom xam-xam yu màgg ñoo ci waxtaanee comme loolu bokk na ci programme bi nga xam ne am na ci biir waajtaay yu màggal Tuuba bi première xam ngeen li ci daaxew ci des seex sëriñ bi daa joxe ngir ñu setal dëkk bi loolu itam buñ ci àggee euh, war koo yëg leen gis na ko defaat sëriñ bi nag waxoon na ma ne naa ko jot leen bokki taalibe bi murid yëpp rawatina ñi dëkk ci dëkk bi ci ndigal li mu joxoon ci li weesu ci sécurité canal yi ndax loolu lépp yërma yërmaande ju am ci yi dëkk Touba rek la te xam ne màggal yi ñëpp xam ne ne tàmbali ci nawet buñ demee ca CRD nga xam naa bokk na ci dañ fa war gën a waxtaane ndax dëkk bi mbedd yi temps yi bari na kenn amut foo jaar te màggal yi mën naa am mu tàbbi ci biir nawet bi xëy na yàlla rek xam ndax inna laa indahu ilmu saa taw bi kay dee tàmbale kenn dee jox suñu borom rek ko xam kon nag li ñu ci war ci saw bi fexe ba nit ñi mën a màggal si jàmm te duñu amee gàllankoor duñu amee xat-xat bi amee jafe di saw rek kon loolu itam sëriñ bi ñu ci sant bokk taal bi di leen ci gërëm ngir xam na ne ba ma ko santaane seen njariñ ak seen yërmande rekk a tax waaye jëfe nañ ko ba defe ko noo xam ne weesu na mu ko séntu bisu bu njëkk bi itam njàngam xasida mu ngi ci daa def ndax dañ ko daa ubbee njàngu alxuraan ci bëccëg bi ci jumaa ji bu guddee ñu def fanaane ko def njàngu xasida ci jumaa ji loolu itam buñ ci àggee nañ ko daa def ñu liggéey bi ñu daa def ñoom fas nañ ko yéene tàmbali ci bis bi jëkk ci weeru safar mooy baas bi ñuy def fii ren nag dañ ci am xalaat boole exposition bi ndax daaw dañ ko doon def dër naa waaye gis ne sori na mu xawoon a tardé ci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 ñoom kon loolu bokk na ci liggéey bi ñuy njëkk a ci safar waa kuréel ak Serigne Cheikh Thioro Serigne Cheikh Thioro moom Serigne Mor Anta Sali Serigne ñoo bokk ndey bàyyi waa kuréel intig bi ñoom itam liggéey bi ñu daa def ci màggal yi comme ni ko ñoom day rawtu ay defe ñoom itam am na yu ñu daa baaxoo di ko def ci dara ay borom xam di di gëstu ci mbiru sëñ gëstu ci biir kilifa yoone ñoom itam liggéey bi danañ ko tàmbali ci premier safar bi ba àgg ci bisu mag bi ala daaw ñi dem kër cheikh Mouhamadou Fadil ren jii itam kër cheikh Mouhamadou Lamine Bara ci lañ koy ubbee tàmbalee ko fa buñ fa jugee itam danay dem kër Serigne Afia Mbacke mi nga xam ne ñëpp xam ne ñu demee ci Serigne bi di doomi Serigne Mor Anta buñ fa jugee itam danañ dem kër Serigne Manoumbe Mbacke mooy itam ñëpp xam nañ lim doon ci biir yi ak lim doon ci Serigne bi ak diggam Serigne bi kon ñoom itam kër yooyu bokk na ci yéen tànn ngir fas fa yéene dem leen ngir xentu seen jeexit ak def ay gëstu yaatu yoo xam ne dana amal nit ñi ngir ñu gën a xam ne seen taxawaay ci biir yoon bu demee ba màggal gi gën a jege itam ba bañ ne suba la ginnaaw suba la njàngum alxuraan mi nga xam ne baaxoo nañ daa ko def itam danañ ko def ci penku jullukaay nga xam ne ñetti fan yëpp njàng mi du taxaw te daara yu bokk ñoo koy taxaw xam ne daara yu jeexale sa morom ñëw ngir xam ne màggal gi lu ñu ci defal Sëriñ Tuubaa rek alxuraan moo ci war a jiitu dafa pàggutee foofu moo nekk alxuraan loolee itam nañ ko daa def ko def xasaay yi nag moom mooy guddi bëccëg ci bis boobu itam bokk na ci bis biñ jagleel délégation yi bàyyi ko bitim réew yëpp rawatina waa Mauritanie ngir xam seen digg Serigne Touba bis boobu lañ leen dajale teral leen defal leen ay yu yaatu bu ñu fi jógee ñëw ci Cheikh Mamadou Mountakha siyaare si ko waxtaan moom mu yeew leen ñu dem àggali seen màggal ci bisu màggal gi itam conférence bi raw du reex yi daa def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 mooy yëkkati baatu laa ilaaha illallaah mbirum Sëriñ Tuubaa rek fu ñu koy waxtaanee fu ne mu ngi tàbbi ci wa man yu'azzim hurumaatillaahi fa huwa xayrun lahu wa man yu'azzim sha'aairallaahi fa innahaa min taqwal quluub kon loolu rek lañ amoon ci kàddu yi luñ leen di wax buñ demee ba weesu màggal Daaru Xudoos rek nañ ko daa defe fii toog ak ñi ñu war a waxal laaj yi ñu war a laaj te fekk lépp gën a tënk boobaa danañ ci àggaat leer laaj wax yi